li sadinatan dëkk la boo xamante nii mi ngi nekkee ci région bu Fatick département bu Gossas arrondissement bu kolobaan Mouré nag boo ciy dem ci yoon wi nga xam ne moo bàyyeekoo Touba jëm xel Xelkom ci ngay jaar Mouré nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu cosaane la taarixu dëkk bi kenn ci taalibe yi nga xam ne fekk nañ ko fa am na loo xam ne leeral nañu ko ci ni nga xam ne noonu lañ sancee dëkk bi le dëkk bi ngeen ñëw tey mooy dëkk bi ñuy wax Muré Muré nag aju ci euh, arrondissement bu Colobane département Gossas région de Fatick euh, di dëgg dëgg xolub Sénégal foofu mooy Muré dëkk bi nag di Muré dëkkub càmm la woon ak mbay waaye ki nga xam ne nag moom moo di sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ndigal la am ngir ñëw daal di fi sanc 2001 nag bi Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir ñëwee sanc si fi ay tool ci ndigalal waa waajuram bu tedd ba seex Saliful Mbacké moo ko joxoon ndigal loolu ne ko damaa bëgg nga taxawal daara te xam ne ci ñi war a liggéeyal sëriñ Touba ci wàllu yar ci nga bokk looloo ko indi woon loola nag njëkk yóbbu leen ci daaray xel comme yooyu yooyu sëñ saali bi ndagam moo ko ko digal te xam na ne moo ko jiitu ci méthode bi te mooy waajuram na jël len ci aw jiwam tabal ko ci biir liggéeyu sëñ saaliw sëriñ saaliw formel ko ñooña ngir ñu ñëw doon sancub daara ji ñooña ñooy jëwrin yi nga xam ne ñoo fi nekk bokk na ca Abdou Lahad Diouf mi nga xam ne tey euh, ñëpp xam nañ ko moom mu feggoog moom nekk ca daara ja ak ku ñuy wax Mamor Ndiaye Khadim Ndiaye ak ñooñu nga xam ne ñooy famille Ndiayeen boobu nga xam ne ñëpp yàgg nañ leen a xam ak sëriñ Basiru ba ci sëñ Fàllu mi nga xam ne mooy jëwrin ji nga xam jaar nañ ci daara ji def fa ay at di formation ba biñ fa génnee ñu la indi tàbbaleen ci biir daara ji nga xam ne ñoo sañ ci daara ji depuis 2001 ba mille 2008 ci la fi indi courant bi 2009 2010 ci la indi euh, hôpital bi ci la fi indi daara moderne bi ci la fi indi tali bi yooyu yëpp dugg si te amutoon ci dëkk bi lamp yi tasaanoo na ci biir dëkk bi ndox mi it ci la ko gën a yaatal forage bi it jamono booba machine bi fi nekkoon machine yi jëkk yàlla bi mu ñëwee dajanteeg ñu tabax fi forage machine bi nekk fi doon groupe buy dox ci gasoil courant bi ñëwagul mu xëcc courant bi ba mu ñëw ku ne xam na ne fu courant dem état bi day daal di teg bët foofa kon machine fa nekk comme courant nga koy doxal fa courant eggagut tañ lott ci wàllu machine u gasoil nañ jël machine boobu yóbbul leen ko fa kon ñoo ko moomoon biñ ba koo jël nag yërmande ji nga moom la doon ne ca waajuram wa Cheikh Abdoul Khadir tam xaaroo ko njaboot gi nga xam ne ñoom la fekk si bëggoon leen a xeetali ngir jëmi Sëñ Tuubaa mu daal di ñaan appel comme ni la ko ki waxee ne damaa bëgg ñu wax ma machine bi lu muy jar ñu wax ko ko mu dal di génne li limu million yooyu jënd machine bi ne nañ ko ko fi bàyyil ndax courant saxu dàkk ci di dox bis bu coupé balaa ñëwaat askan wi mën nañoo yëg aw mar te xaarewu leen aw mar ndax sëñ Tuubaa fu mu dem mar gàddaay na fa xiif gàddaay na fa raf la gàddaay na fa lépp lu ñu ragal gàddaay na fa te moom moo fi ñëw ngir fas yéene la gël sëriñ Tuubaa ci ndigalal waajuram ba sëriñ Saalim sëriñ Basiiru Abdul Xaadir nag bëri na ay daara ak ay tool waaye bii nga xam ne moo nekk ci Muré du fi géej bari na lu mu fiy ñëw te ñëwam gi saa ne day jur mbégte ci taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoom la fi fekk. bu fiy ñëw it mi muy àndal mi muy fekk ci waa dëkk bi ñu di ko ko xaaroo moo koy raw ndax dañuy xam njariñ li mu àndal te àndut ak i lor xaaroo ko mbooleem njabootu Touba Mouride yi nga xam ne saa bu ñëwee xar kanamu ndaw ak bu mag ñoo ci yem yëpp ay belli di yëg mbégte ak xel mu dal ak yaakaar ju dëgër. ak ndërlaay lu wóor ci wéeruwaay ci jëmmam ju sell jooju nga xam ne sëriñ Touba moo nu ko feexale te ku ko amut soxla ko ku ko amit yëg ne am nga ko téye ko bu dëgër loolu la waa mën a yëg ci Serigne Bassirou ba saa bu waajee ngir jëm si fi ñu yëg ne mi ngi ñëw di ko yàkkali ko su ñëwee duñ bëgg mu gaaw a dem ndax ak ñëwam ci dëkk bi dafay bari lu mu fi yokk ak lu mu fi dundal ak lu mu fiy lu mu fiy lu mu fiy yaatal. yaatal googu sax moom moo tax Serigne Bassirou Abdoul ci daaram ji nga xam ne moom la taxawal ci dëkk bi mbooleem ndongo yi nga xam ne ñoo fi jàngee di leen taxawu ci mbooleem loo xam ne dañu ko yittewoo ñoom sax du ñuy yalwaan yi loolee nag di ak yërmande goo xam ne am na ko ci ñoom. mu amee yërmande ak ak ak yelleef gi mu xam ci doomu adama moo tax sëriñ ba Bachirou bu fekkee ne dongo yi dañoo waroon a génn tasaaroo gàddu seen i mbattu yalwaane doog a xëy mbaa ñu doog gont moom moo leen wuutul boppam ca loolee jël ndabul yalwaanul dongo yëpp ko. jëlal leen sarax ba di leen ko joxal boppam nga xam ne moo leen di añal moo leen di reeral moo leen di faj ko ci wopp di leen wutale dàll suukar ak café ak lépp dara manqué wu ci gis nga daara ja boo fa demee nañu ko def ku ne xam na ne miir ba ñu miiree daara ja bëri waa na réew yooyu dem ca ville gën a ville doo fa fekk miir bu garantie noona gis bâtiment yi nga xam ne ca la donga ya nekk gis matériel mbay bi nga xamante ni moom la jël jox leen ko lépp lam ci jublu rek bëggul ñuy fitnaal borom bakkan yoo xam ne donga yi mën naa am ñuy jànkonteeg ñoom lu mel ne ay nag jaaroon nañ ci doon ci bay bi ci doxee tuuti ba gis ne nag yi mën naa am xale yi tuuti yi ñu mën cee am ak loru ndax nag daa am ko ci la fexe ba indi leen jumtuwaayu tracteur lëkkale koog yéene jim am ci yaatal liggéey bi ngir jëmi Sëriñ Tuubaa. Sëriñ Basiiru Abdul Xaadir nag naka jekk yàgg nay bay waaye ndigal li nga xam ne Sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir joxe na ko ngir wax ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñu delluwaat ci tool yi tax na mu gën a fonkaat toole mi nga xam ne ci lay bay saa su ne waaye lu ëpp ci li nga xam ne moo fay ruusee ci mbay mi da koy jébalaat ay kilifaam. loola nag moo ko gën a yóbbu ci mu indi ku ñuy wax Moustapha Diouf mooy jëwriñ jee nga xam ne moo féete ci wàllu tool yi yore tracteur yi waaye mooy jàngal xale yi xasida yi sëñ yi ñu di ko mokkal di ko yëkkati muy daaju mag ña comme noonu ko sëñ Tuubaa daan jàngale rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boo jant bi sowoon fekk la ci daara ji da ngay gis kuréelu xasida yi taxaw di yëkkati xasida nag di ko tàmbalee jës bu mawaahi bu muqaddimat mafatihul jinaan midaadi karam na ak mboolem xasida yi nga xam ne rek miin nañ ko njabootu sëñ Saliou di ko jàng njabootu sëñ Basiru gi ñu ngi koy jàng di ko mokkal di ko yëkkate te duñ yoru kayit duñ ko xool te duñ ko yàq bismillahi fii niin ak daala yàllaw sawi baqa abi bi fiika yàllaw yaa man la الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوسي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام ملاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا علام أنت سلام لاسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بيتي tool yi nga xam ne nag sëriñ bi moom la amee ci dëkk bi nekk na tool yu yaatoo yaatu tool yoo xam ne at mu jot da ciy bay ngir waajal nawetub ren bi tax na ba sëriñ bi woowoon ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñu ñëwoon ci ruuj moo xamante ni ruuj mu yaatoo yaatu la. tool bi ñu ñëw nii mooy tool bi nga xamante ne mooy tool bi gën a mag ci tool yi ndax euh, tool bu ci ne ñu ngi koy xa boo xoolee euh, benn bu ci ne mën na vingt hectares waaye bi ëpp na ko ndax bi am na boo gisee côté bii nii ci tool bi la tool côté ba la ne boo xoolee ak tool yee ñooy tolloo. kon ëpp na loolu mën naa jàpp ne 70 hectares war na koo mën muy 6 kilomètres 500 normalement war na koo mat euh, mu doon euh, foo euh, foo xamante ni it maanaam wax dëgg yàlla barabu liggéeyukaay la xëy na daaw ko woote waaye liggéey bi moom bés bu ne mu ngi fi woon ñu koy continuer di ko liggéey waaw waaye ren nag moom da koo gën a yaatal gën ñoo jàppandal liggéey bi ndax ëkk yi nii buñ ko dindee dana tax lu mel ni territoire yeeg yooyu liggéey bi biñ ci war a liggéey dañ ko mën a liggéey na mu gën a ware ndax dañ ko daan liggéey ak territoire waaye dañu àgg foo xam ne daan jël nag yi di ko liggéeyee léegi nag lii moom bu ko ni mu def nii dana tax ni ñu bëgg a liggéey suñu liggéey dañ ko mën a liggéey te am benn gàllankoor du am benn jafe liggéey bi nag des na ndax tool bii nii bu jeexee des na beneen tool ak beneen maanaam ñaari tool daal bu bii àggee eh, jeexut waaye na gis nga boo xoolee gis baas yeeg yooyu xam nga ne ñoom waajal nañ ko jàpp nañ ne dañ fi toog ba liggéey bi àgg tool yi nag ni mu yaatoo tax na ba at mu jot ay variétés yu bëree bëri moom lañ fiy bay. dañu bay gerte dugub ak ñebe yooyu daal mu ëpp luñ fi ak mboq waaye dugub ak gerte ak ñebe daal moo gën a yaar moo gën a nekk euh, mbay mi ñu gën a euh, fulaal waaw mboq nag euh, dana am fu ñu ko mën a bay ndax fii daa am côté yoo xamante ne moom nga mën a bay mboq am côté yoo xam doo ko mën a bay. liggéey bi nag sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadir bi mu ko wootee mbooleem taalibe yi wuy si nañ ko wuy bu yaatoo yaatu. am na ci sax kilifa yoo xamante nii ñëw nañ ngir ànd ak sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr liggéey bu am solo bi nga xam ne woo na leen ci. Ibrahima Diallo dudd doomu sëñ Ibrahima maa ngi jógee Dóor Rahman ko suñu saa moom mooy suñu kilifa moom sëñ Ibrahima Ndiaye moo ñu yabal nag man mi rakkam laa boole ko ab taw ku yam Moustapha ak yeneen doomam ak tool bi yëpp daal ñu teew fii ngir liggéeyal sëñ mooy sëñ suñu suñu Touba waaw ñaan daal ñaan ko ndax suñu njëriñ la ndax kon mooy suñu bëgg suñu maam ci newoon ba jógee ni ci la nekk waaw suñu bëri waxoon mooy doomu suñu dóor asaan waaw mi àndoon suñu Tuubaa ci wàllu bokk ay altopere lan waaw sa daal wi ndigal la la xasaay teg suñu ndigal mu jekk lan ci loolu sax waaw tund bi yëpp nekk ndax moo suñu Tuubaa waaw liggéey bi mbooleem taalibe yi nga xam ne ñëwoon nañ wane na ci Pastef ak njàmbaarte ba tax na bi liggéey bi noppee rek ci lañ indi mbooleem xéewal li nga xam ne waajaloon nañ ko ngir mbokk taalibe yi ñu séddale ko ci tool yi ngir kenn ku ci nekk mën cee barkeelu kilifa yu bëree bari nag ñoo ñëwoon ngir barkeelu ci liggéey bi nga xamante ni Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr woote woon na ko ci toolam yi nga xam ne moo nekkee ci dëkk bii di Mouré di tool yu yaatoo yaatu yoo xam ne at mu jot da ciy bay waaye niñ ko leeralee la ci ëpp ci li fi ruusee ci mbay mi da koy jébbalaat ay kilifaam def ko àddiyee Cheikhul Xadim yaa moominu fi janna bi durrama kadarin waabliyal am na fi daarayni yaa Allah حديث رايك ما حديث سرا إلى mbokki téléspectateurs yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlale woon ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba Mouré ci tool yi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr yi nga xam ne dañ ci doon amal benn découverte di leen xamale ak liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi amal na ko fi lii leen nag di liggéey bu yaatoo yaatu boo xam ne saa su ne mu ngi koy ànd ak taalibe yi waaye di ci liggéeyal sëriñ Touba di tarbilee ndongo yi di leen taxaw ci bépp fànn di ñaanalaat sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir mu yàgg fi loolu tànd ak wér ba lépp loo xam ne moom la naal ci liggéey yi di ko liggéeyal sëriñ Touba mu am ci ndam ba naal yeneen naal wasalaamualeykum wa rahmatullahi لي سكينة بكل الجنة من داري من يا المنة لي سكينة بكل الجنة من داري من يا المنة